jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mu nekkoon ci jotaay bi ci almisbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak tiraanga ak poche yu def dara tabaarakallaahu ñaari ay bés yi nu génn maa ngi àndoon ak xale yi maa ngi àndoon ak jenes bi góor ñi ak jigéen ñi ci benn réunion boo xam ne dafa dox sama diggante ak ñoom tabaarakallaahu yàlla nattoo ma may diriger réunion bi wala bokk yàlla nattooñu wala xéewaliñu ñuy diriger réunion bi ànd ceeg ndaw ñi ñuy laaj ay laaj ginnaaw bi ma leen defalee benn exposé bu ndaw laaj yi nag ci lañu tolloon tolloon laaw am na sax ay mag ñoo xam ne yëg naa ne ñu ngi ci saal bi tooge ca ginnaaw nekk ay encadreur bëgg a encadrer ndaw ñi yëg naa ni it ministre bi nga xam ne moo yor ndaw ñi mu ngi ci salle bi <laughs> monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu di la jox sa cër waaw yëg naa ne it tabarakallahu euh, dawaayir yu baree baree bari yeble nañ fi ay ndaw ni ngeen toog ak ñun ci salle bi ci réunion bi nu tolloon ci question réponse te nag du divers déedéet nekkuñ ci divers yi ci question réponse yi la ñu nekkoon waaw euh, ñu ne ci ndaw ñi di waxtaan ak ñoom ba agsi ci ñuy laaj ñuy jéem a tontu déglu woon nañ tontul Idris tontul Baye mbay waaye tey benn xale yëkkati loxoom nga xam ne mooy secretaire général séance bi daal di koy laaj yow la kan ak foo bàyyi ko ne maa ngi tudd Ibrahima Diop maa ngi bàyyi ko Tiwaawoon pël waaw ah Ibrahima Diop menn mu ne waaw Ibrahima Diop menn waaw doom la ci njinde ñëpp ne ah ndeysaan mu ne dafa am ab laaj laaj bi mooy daf ko jëme ci ndaw ñi ak coppat gi ñu bëgg ci pinc mi ndaw ñi ak coppat gi ñu bëgg ci pénc mi loolu daal la bëggoon ab laajam mu jëme ko ci ak itam lu tax ndaw ñi soppi walla dindi li fi nekk def lu fi nekk walla def fi leneen Cheikh Ibrahim baat bi yomb naa wax baat bi yomb naa wax waaye daal lépp loo xam ne ay coppat la ci àdduna si waa àdduna yàgg nañ koo def Karl Marx bi mu ñëwee yem fekkoon ci pénc ma jéemoon na ko soppi ba indi fi ay xalaatam ba pénc mi dox ci xalaatam communisme yi noonu lañu ñu defoon ñoom tam ba nu ñëwee jéem nañoo dindi li fi nekk waaye seenu doxalin mooy wuuteeg doxalinu lislaam bu ñëwee di soppi ñoom mën nañoo gàddu ngànnaay mën nañoo defi pexe yu ni jëme waaw ndax ñoom li daan wax ne wenn yoon amu fi wu wan samp sunu xalaat yi lu dul révolutionné révolutionné ko bu fekkee nu la ñu professeur ndaw nag ndaw arab day wax ne ndaw huwa al qitaacu l muctamad lada kulli l itijahat daat al stratégie at taxyiria maanaam ndaw mu xam kar la Marx moo bëgg a moo xam Lénine moo bëgg a changer moo xam Durkheim moo bëgg a changer moo xam Adam Smith moo bëgg a changer mbooleem koo xam ne kii danga bëgg li ne ci kaw àdduna soppeeku ci ndaw ñi ngay jaar ndax mag ñi miinante ñoo régime foo mën a dem ci àdduna si bu régime politique amee mag ña dañuy miinante régime ba ba soppi leen ko bàyyi leen ko fa mooy gën donte am na ay rëq-rëq yu ñu jubbanteeku yu ni demee ndaw ñi nga xam ne ñoom miinaguñu régime bi régime bi miinaguñ leen changé loolu ci ñoom lay gën a yomb Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kon fawra euh, yi fawraat yi bokk révolution yi révolution yi bu fekkee nu leen ko waxee boo ci xam ne walbati doxinu ci la woon ak lu man di nekk ndaw li ñu ndaw ni ñooy ñi nga xam ne ci ñoom ngay sukkandiku ngir def li nga bëgg a def ndaw rek ndaw rek waaw waaw fi ni boo laajee Ablaye Diaw mel na ko yàlla yokku wér sportif équipe boo seen màggat yëpp ëpp ca léegi am victoire jafe leen moo tax techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu sport te man ko dañuy xam nu ñuy roccee mag ñi ndànk-ndànk di roof xale yi ndànk-ndànk te kenn du ko yëg waaye boo bàyyi ba équipe màggatandoo bala nga amati victoire day yàgg moo tax ndaw ndaw am cër bu am solo boo xam ne bii lislaam daf koo bëgg ci moom penc mi daf koo bëgg ci moom te mooy seen rôle bi nga xam ne moom lañu war a jouer ñoom ndaw ñi góor a ko jigéen waaw ñoom ndaw ñi góor a jigéen loolu nag ndaw rek lañ ko wóo lañ ko séentoo waaye nag Cheikh Ibrahim lu tax ndaw ñi kon ci sa deuxième laaj bi lu tax ndaw ñi lu tax lu soppiku ci penc bi rek ndaw a ko soppi Cheikh Ibrahim l'islam logique bi muy doxee mooy sukkandiku ci ndaw ñi waaye du tax mu bàyyi mag ñi bind bi weesu wala bokk jataay bi weesu waxoon naan ceeg yéen ci lu tax wolof naan ndaw mag mën naa ba cib dëkk waaw lu tax wolof naan ndaw mën naa ba ci mat naa ba cib dëkk wala boog mag ngeen baal ma moo tax logique gu islaam mooy ku ci nekk daa am loo mën a def muy mag mi muy ndaw li muy góor muy jigéen ku ci nekk nañ la jox sa àq ci li ñu bëgg a def ci pénc mi ndaw ñi doxal rôlu ndaw ñi mag ñi doxal rôlu mag màggat ñu doxal rolu màggat waaw ndax sallallahu alayhi wa sallam mu yàlla yónni woon te lu ñuy def mu jiitu ñu jë ñu jël ci moom référence te bañ ci am benn complex moo waxoon ñetti wax yu jar a bàyyi xel daf ne woon rahimallahu mra'an arafa xaq xadda fa waqafa inda mu ne yàlla na yàlla yërëm nit ku xam ay compétence am mu yem ca wax ju am solo la yàlla na yàlla yërëm nit ku xam lii ay compétence am mu yem ca bi maanaa nit ku ne dafa am lu yàlla mooñ ci yow waaye nag du temps yépp la ko mooñ ci yow mu ngi ci bind bi ci kanam mi ngi ci bind bi ci kanam walla mi ngi ci euh, réponse yi ci kanam ci sa laaj bu rëy bii euh, Cheikh Ibrahim Diop euh, tuwaawoon pël mu waxaat beneen wax mu ñett ñaaral wax bi laysa minna man lam yuwaxir kabirana wa yarham saxirana dégg nga foofu wax ju rëy ji bi wax mu ne ku ormaalut sunu mag yërëm sunu gone bokkoo ci nun ku ormalul sunu mag yërëmoo sunuy gone bokkoo ci ñun ma tax su ma déggee ndaw luy wax ba gis mag moo xam ne li nga nekk nii ci la nekkoon li ngay jéem nii moom la manoon fi ngay jéem a jaar fii fala jaaroon yi ngay jàngale nii la doon jàngale ma gis ndaw loo xam ne ñeme naa xuus ci loolu mag ñi doon def bëgg ca wan nit ñi ay gàkk-gàkk wala bëgg a wan nit ñi ne mag mii nangam man damay am tiitaangi ci waaw xanaa kon ngóor sii déggul addis bi man problème boobu laay am mag ñi la jiitu ci lii loo leen ormal doyut loo leen doyut su fekkoon sax dangaa fekk mag mi doon dem bàyyi ak matt ci àll bi yow la nga war def mooy jël matt ga jéem a dabi mag ma ne ko matt gi ceew la wadde allahu bu fekkoon cëg gi banaana la mag mi jaar fi dem banaana yooye am ci banaana yu wadd yow li la war mooy for banaana ya dab mag ma ne ko banaana yi ceew la wadde waaye boo fa nekk naan ko munoo yenu banaana banaana duñ ko yenoon nii boo ko yenoon nii day wadd banaana bu yàggee ci yoon bi day fuus loolu du sa problème yow yow lii sa problème rek mooy banaana bii wadde woon ci moom noo koy rebe ba delloo ko banaanam waaw suñu waxtaanu mag sama xarit ba ad daaiya al kabir waaw al ustaas Alioune Guèye cëcce <laughs> allahu akbar waaw ustaas Alioune Guèye cëcce na ba ndeysaan waaw lu am solo la moo di laysa minna man la mu yaxir kabirana wa yaram saxirana lan ñan ñooy kabir naa mooy li ngay woote ki ci nekkoon jullit la sa sa mag la lan mooy saxiru saxiruna saxiruna mu ñi nga xam ne ñooy jéem a dog yoon wi nga jaar bëgg laa dab pour nga joxoñ leen mag ñu dabi leen isaan gone yi nga xam ne dañoo jaar ci yow bëgg nga joxoñ leen mag ñi ñu dabi leen rikk waay buñ la dabee joxañ leen mag ñi mag ñi joxañ leen mag ñëli mag ñëli joxañ leen mag mi mag mi joxañ leen borom bi ñëpp àgg jàmm ne ñooy waaw àgg jàmm ñooy Cheikh Ibrahim sa laaj bi ñetteelu tomb bi yonent bi nee na xibalil xaq waaw mimman jaa bi min saxiirin aw kabir walaw kaana bagidan baida allahu akbar yontu na dëgg mu ne ah mu ne fu mu jógee rek nangul dëgg fum mu jógee nangul bu ko ndaw waxee nangul bu ko wag mag waxee nangul ndax dëgg puso la puso bu réer la bu ñuy seet puso bu réer mag mën na koo for ndaw mën na koo for ki foor puso bi nag bu ne puso baa ngi te nga moom puso bi nee ko indi gone ko for bul wax ne gono du for puso <laughs> mag a ko for bul wax mag du for puso puso bi daa réer ci pénc mi mag mën na ko for ndaw mën na ko for loolu la alayhi salaatu wasalaam waxoon moo tax mu séddoon ndaw ña cër ba mu leen séddoon séddoon mag ña cër ba mu leen séddoon sallallahu alayhi na waaye fu caaxaan jóge nag fu caaxaan jóge waaw lankal bu ko gone indee lankal bu ko mag indee lankal waaw loo xaritoo xaritoo kooku nag lankal rek kee nag loo ko bañ bañ bañ bu bu dëgg jóge ci moom jëlal rek euh, Cheikh Ibrahim loolu moo waral ñu ne ndaw ñi waaye mag ñi mën nañoo jël seen place ci yëf yi ndax dafa am ñu tuddee tanaasub waaw tanaasub ak tanaasux tanaasux mooy ñii dëppoo nañu gis nga nit ñi boo seetloo ni ñuy solo dañuy sol ci tanaasub waaw bariwul koo xam ne day solo ci lu dul tanaasub tanaasub mooy lan nga am ñetti ñetti abdu ni ñu koy wax sunu pénc salopet njiital ak garambubb ñoom ñépp ñu nekk benn yi nga sol leen loolu la ñu tuddee tanaasub nag mooy coordonné yëf yi fexe ba yëf yi am ab coordination bu ci am mu mu taqaloo mu taqaloo bokk yi ni yàlla binde nit ni yàlla binde nit te mu jëm ci tontu mbokk mii di Cheikh Ibrahim fu dundug nit toll rek am na lum fa man arab yi ñooy wax ne ñu jàngale daawa ba demee ca Soudan dañu naan fal insaanu fi kulli tawrin min atwaari xayaatihi yakunu ladayhi min al wa taaxaat maa yatanaasabu maa muhimmatin muayyana loolu la ñuy wax ñoom ñuy jàngale daawa waaw tabarkàlla ñoom Ahmad Lum Sàmb waaw ak ñoom Sàmb ma ca kulliyatu Ifriqiya yàlla na yàlla sàmm leen waaw gaa yu nga xam ne tabarkàlla <laughs> yàlla na yàlla sàmm leen rek nit nit kero ba mu juddoo ferum soow ba baa muy sàngoo suuf fu mu toll am na lu yàlla mooñ ci moom loo xam ne lu mu man la te pénc mi soxla ko lu mu man la te pénc mi soxla ko waaw di tâche boo xam ne bu ko defee ñépp xam ne lii mën na ko waaw moo xam dafa toll ci sunu tufu la mooy ndaw la wala dafa toll ci sunu shabaab waxambaane la walla sunu ruju la mag la wala sunul kuhu la dori la sunu borom daa wax ne fu may roddu ila arsalil umur li la laa yaalama min baadi ilmin shay'a mu ngi ci suratul xajj aya quinze su ma jumut mu ne nit da doon suñ borom da jàngale fi nit di jaar ba gane àdduna waaye mu am andi ci lu am solo mu ne summa yuraddu ila arsalil umur maanaam ñu yóbbu nit ba mu kumur ba mu kumur màggat ba kumur ba dootul xam dara dara dara ca lam xamoon waaw ba dootul xam dara ca lam xamoon loolu lañ wolof di waxtu den naag naag ñi ko def mën nañoo toog léegi wax dara génn ca bu yàgg yéen ñi dëkk ki màggat xam ngeen ko moo xam màggat mu jigéen moo xam màggat mu góor waaw màggat moom ba nga xam ne li kay laa yaalama min di ilmin shay a min baadi ilmin nga xam ne ni ñu ko wax woon ci jataay yi weesu daaf quwa daaf ñi dëkk ki màggat xam nañ ci dara man gisoon naa ca càlle màggat muy jooy cere waaw maanaam ñu siimal ko cere jox ko mbàtt mu toog nam daan def ba muy nekk bébé maa maa gis màggat mu doon def noonu ndeysaan te mi ngi ci dëkk bi léeg-léeg nit xam ci ma sa sa sa yaay wala sa maam di wax wax yoo xam ne danga xam ne lii waxi waxi màggat la ndeysaan waxi ku naag la waaw waxi màggat la waxi ku naag la kon Cheikh Ibrahim li waral ashabab muy ndaw ñi mooy lii rek ndaw mooy sinnuli himam mooy toll ci ati yitte ati yitte ati deret waaye ati njàmbaar waaye ati mébét yaakaar ba tax soo séenee Cheikh Moustapha al mustarshiduuna ndeysaan yàlla yàlla sàmm leen wal mustarshidaati nga ñëw ñu leen ñu ne ñii mooy pépinière bi pépinière c'est-à-dire jiw waa ngi nii <laughs> jiw bi jëm si ci ñoom oustaz Makari waaw ndeysaan ñoom oustaz Makari jëm ci ñoom oustaz eh, Malick Mbaye waaw ñoom oustaz Malick Mbaye ñëw ci loxol al mu joxoñ leen al Maktoum ndeysaan al Maktoum joxoñ leen sëñ Babacar Si ñoom ñëpp ñu xëm waaw sëñ Babacar Si joxoñ leen Cheikh Al Hadji borom yaqaasal baar bu joxoñ leen sallallahu alayhi wa sallam présenté leen ndeysaan tt daayira yëpp noonu la ndeysaan boo demee ca raw du riyaaxin hmm? mbaa nga dem ca eh, tabarkalla eh, silkul jawaari fii axbaari saraayiri ak ak ak waaw kulil lim juumbaay yi ñu ngi fi waaw pénc mii ci suñu wet rek péncum laayin mii xam ngeen ci dara zahirina wa zahiraati waaye ay mbokk yi loolu yàlla na gën a yaatuwaay waaw Cheikh Ibrahim sa question bii daal pénc mi ne nañu c'est question pertinente euh, looloo tax ndaw ñi ci logique gu islaam ñëwoon na ci sunu jataay yi weesu alayhi salaatu wasalaam ne leen ndaw ñi ndaw ñi waaw mu ne damaa bëgg waxtaan ak yéen ndaw ñépp déglu ko mu ne kenn ku ci nekk ci yéen na jël wax ji ixtanim xamsan xabla xamsin ixtanim xamsan xabla xamsin ñaare kuy waxtaan ak ndaw rek danga indi kàddu googu ba di dema ca tasawudu sixaar maam Cheikh maam Sëñ Tuubaa ma nga naan ixtanimu xamsan xubayla xamsi kama bihi waaw ndeysaan nam ko nettalee woon xayra insi kama bihi amara xayral xayrul insi defe naa noonu la suma jumul alayhi salaatu salaam mu ne ndaw ñi na ngeen jëfandikoo juróom balaa juróom a ñëw hmm. ndaw ñépp may ko nopp ji génne seen binduko ak seen këyit seen agenda waaw mu ne leen bi ngay nekk ndaw bala ngaa màggat bi ngay wér bala ngaa feebar bi ngay am bala ngaa ñàkk bi ngay dund bala ngaa faatu bi nga amee jot bala ngaa ñàkk jot waaw mbokk yi mbindeef noonu la ko yàlla binde rawatina nit mbindeef yépp la yàlla binde noonu bébé màgg tuuti tabarkalla àgg ci waxambaane àgg ci nangam foofu la nit di jaar ñoom ñëpp tabaarkàlla wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna nnaasi waaw sunu borom nee na ay ayloo rekk la ku fégal jox sa morom ndeysaan ay ayloo dong la ku fégal jox sa moroom waaw barki démb mbokk mëla ca jogo moor sekkum jogo daf maa yónnee benn foto boo xam ne maag Ibrahima Demba Seck menn mi ngeen xam ñoo ci bokkoon ànd ak xaaligéey mëla ca Espagne waaw waaw ndeysaan ñoo doonoon ustaas ya kenn ku ne suqal sa bopp toog ca taabal ja <laughs> si photo boobu daal xam naa naa leen ko naa leen ko partage ci statut <laughs> kenn mësu koo gis rek boobu amuñu kawar gu weex ndeysaan sëqal suñu bopp nag nekk ay ustaas seetet wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna nnaasi alayhi salaatu salaam mooy inna li kulli aamilin shira wa innal wa li kulli shiratin fatara fa man kaanat shiratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kaanat shiratuhu ila gayri zalika faqad halak Cheikh Ibrahim bu nu del see incha allah ma jéem laa firil addis boobu door a jox leneen ndaw euh, kàddu gi mu posé question moom tam bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd suñu jotaay bi am lundi di am mardi di tàmbali 8 heures di jeex di heures jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ñoo ngi lu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi réew yi su sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne tax yor seen i kayit bëgg leen a firim fàncal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien ak suñu sponsor yi di C3S yàlla yàlla defar seeni mbir mbir ci def ci suñuy poos dara naan da doon toxtaani moo di seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaaha ma tataxtu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu